أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم yéen mbokki jullit ñi ñu ngi leen di nuyu nuyu lislaam di leen wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa di am mbégte di leen dalal ci seen émission ummati ummati muy émission bu ñu jagleel lépp loo xam ne laal na diine xam-xamu diine ak jaamu yàlla ci lislaam di ci jagleel rubrique weeru bi ñu nekk te tuddee ko Ramadan Fitness di ci fas yéene ànd euh, soppe muy fadilatu imam Muhammad Muntaga Sakho muy imaamu masjid al muhajirina wal ansar ci Staten Island New York waaye it imam mooy founder of Islamic Cultural Foundation of America ki leen di jottali kàddu yi di seen uh, soppe seen xarit Pape Baro Jaxate ci masjidul hidaaya Washington DC fadilatu imaam ana lan ngeen nuyoo mbokk yi ñuy déglu bismillahi arrahmani arrahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim sang bi baro ñu ngi am kontantuma di bokk yow jotaay wi di nuyu mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu mbaa ñu seetaan fi mashariqil ardi wa magharibiha di ñaan sama borom boole ñu defaral suñu zahir ak suñu batin tawfiqal ñu ba lépp luñ fi tudd mu dëppoog ni bëggee te mu ubbi xol ba njëriñ la yàgg ca te mu dimbale ñu ba ñu bokk jëfe te mu ànd ak sellal suñu borom boole ñu nangul te yéegee ñu ci darajay anbiyaaw yi ak mursalun yi bi jiwaari mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa fi ala illiyin fi maqaadi sidqin inda malikin muqtadirin rahman jërëjëf imaam ci euh, sa nuyoo gu am solo gi ak ñaan yi yal nañu ko yàlla boole nangul waaw di la laajte rek imaam ana lan moo waral titre émission bi ummati ummati jërëjëf sang bi question bu solo ummati ummati ana lu ko waral dañoo jàng ci saxiixu muslim sayiduna abdullahi doomi sayiduna amru bnu al-as yal na yàlla boole leen gërëm mu ne dafa jàng waxi yàlla ji mu wax ci ibrahim rabbi innahunna adlalna kathiran min annas faman tabiani fa innahu minni jàng waxi yàlla jim wax ci isa alayhi salaam in tucadibhum fa innahum cibaaduk wa in taxfir lahum fa innaka anta alazizu alxakim mu yëgati ñaari loxom yàlla sama xeet yàlla sama xeet allahumma ummati ummati jooy yàlla yebal jibril alayhi salaam pour mu laaj ko lu koy jooy lu muy jooy te yàlla ko gën a xam jibril demal nga laaj mu muhammad lu muy jooy te sa borom moo la gën a xam mu laaj ko ñëw wax ko te yàlla ko gën a xam ne ko demal nga ne ko inna sa nurdika fi ummatik wala nasuuk dañ la gërëm loo ci sa xeet te duñ la ci teg lu la métti lu la naqadi dañ la gërëm loo sa nurdika rek doyoon na wala sawfa yutika rabbuka fa tarda waaye mu feddalil ko nag duñ la ci teg lu la naqadi mooy xeetam yëpp lay soowe yonentu sallallahu alayhi wa sallam bu mu gisee situation ñaari sang yi ci seen xeet Seydina Ibrahim ak Seydina isa xelam dem ci xeetam mu ñeewante leen laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum xarisun alaykum bilmuminina raufun rahim laaye ji in tucadibhum fa innahum cibaduk wa in taxfir lahum fa innaka anta al azizu alxakim wax ne ne yonentu jàng na ko guddi ba fajar jot mënu ko romb di jooy ndax bi alayhi salaatu wassalaam ndey aysatu ñaan loo ko yonentu bi ñaanal ko ñaan gi neex lool sayyidatuna aysha daal di kontaan ree ndax yonentu dafa ne allahuma axfir li aishata ma taqaddama min dambiha wa ma taaxar ma asarrat wa ma alanat wa ma alanat ne ko ndeyaay mu ne ko Aysatu li ma la ñaanal da nga kontaan fekk booba reena ba boppam mënatul téye boppam mu ne ko ah, téye ba duma ci kontaan mu ne ko ñaan gi nag innaha la duaai li ummati fi kulli sala li ma la ñaanal ni moom laay ñaanal sama xeet julli gu nekk yonentu gisul ndey gisul baay gisul doom gisul mag gisul rakk gisul soxna gisul xarit xeet wi yëpp la def doom alayhi salaatu wassalaam xeet wi yëpp la def njaboot moo tax bu yowmal qiyaamate bu ñëpp jaaxle ci moom lañ jëm moom mooy su jot ñaan yàlla pour mu sauver jaam ñi bu yowmal qiyaamate bu yonent yëpp jaaxle ci moom la ñuy yebal nit ñi nee na yowmal qiyaamate alayhi salaatu wassalaam bu yàlla sampe siraat ci kaw jahannam man may njëkk a jéggi ci yonent yi ànd ak sama xeet keroog kenn du wax xanaa yonent yi te seen wax yëpp mooy allahuma sallim allahuma sallim mucc googu yonentu bëggal xeet wi moom la ñun ñëpp war a bëggal xeet wi yërmande googu la ñun ñëpp war a am ba tax ñu war a partager njàngaleem yonent bi ndax ñëpp mucc ummati ummati alayhi fadilatu imam ci leeral yu am solo yi ah, ñu ci déggee tamit rek yërëmande ak ñeewante bi yonante bi sallallahu alayhi wa am waxuma la ci xeetam bi rek waaye ci jaamu yàlla yi ne wama illa rahmatan lil alamin muy dëggal kàddu dool di wax ne yow bi yónniwuma la dudul nga nekk yërëmande ci aji ñeel lépp li nga xam ne bind naa ko fa tabaarakallah dafa mel ni euh, dugg nañu ci weeru koor bay gannaaw weeru shaabaan waaye mu mel ni tamit euh, at bi ñu nekk dafa am lu lëmbe àdduna bi muy mbas bu ñu tuddee covid 19 wala coronavirus te mu tënk nit ñi ci lu bare ci seen wàllu dundin ak seen wàllu nekkin di wax ne imaam ana naka nga ko dundee ak yan jàngat ngay indi ak ngay def ci situation bi fi mu toll ak jullit ñi ban taxawaay lañ ci war a am. jërëjëf sëriñ bi wax nga dëgg. jóge nañ ci weeru mag wu tedd muy Shaaban dugg ci weeru gën a màgg gën a tedd muy Ramadan yonentu sallallahu alayhi wa daf daa woor li ëpp ci weeru Shaaban lu tax ndax nee na weer la wa nga xam ne ci la ñuy présenté jëfi sama borom tabaraka wa taala mu bëgg bu ñuy yëgati jëfam jëme ci borom bi fekk ko ci koor wax na ne it guddi ga ko fukkeel juróom sama borom dana xool jam ñi baal ñëpp ba mu des ñaar ki bokkaaleeg borom bi ak ki dencal mbokkam dara ci xolam ci mbañel moo tax sayiduna abdullah ibnu mas'ud dañ ko laaj nu ngeen daan teeroo weeru koor mu ne sañuñu woon sañuñu woon weeru koor aksi te fekk suñu xol daraay mbañel mi ngi ci ñeel suñu mbokk noonu la yonentu sallallahu alayhi wa sallam daan duggee ci koor ànd ak i saxaabaam ànd ak waa këram def jaamu yàlla ya gën a ci Chaabaan mu mel ni échauffement la pour weeru koor as-salafu saalih daan nañ tëj seeni boutique sax di soxlawoo jàng alquran ci Shaaban balaa weeru koor yi dugg kon bu weeru koor duggee waxi nopp wala waxi noppi xaw ma ban la ci yonentu nag bu weeru koor duggaan dafay bég di bégal saxaaba weeru koor weer woo xam ne sama borom def ci ubbi aljanna du ko tëj dafay ci tëj bunti safara du ko ubbi daf ci jéng shayatin guddee nga ci goo xam ne moo gën junney weer ki perte dëgg mooy ki weeru koor weesu te dajewul ak yërmande yàlla weeru koor wi ni ko waxe tombeek jafe-jafe yi xew ci àdduna waaye yonentu sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañu ne mbiru jullit yëpp yiw la su ko yàlla xéewale mu sant te mu yiw mbiru jullit yëpp yiw la su nattoo mu muñ du jis dara ci dara lu loxob yàlla ba qul lan yusibana illa ma kataba allahu lana ajaban li amri almumini inna amra almumini kullahu xayr jullit nag amul lu ëpp jox boppam yàlla te weer wii nag mooy weer wim ko gën a mën a defee ndax yàlla ba muy tudd weer wi ak solo si ca digg ba la indi laayee ñaan su la sama jaam ñi laajee wax leen ku jege laa damay nangu ñaanu aji ñaan su ñaanee kon nag nañ ci dugg ak xol bu ubbeeku ngir principe bu taqwa ak xol bu ubbeeku ngir principe bu shukur ndax ñaar yooyu la yàlla wax ci laayaat yi laallakum tattaquun ak wa laallakum tashkuruun ragal yàlla ak sant ko lépp loo xam ne ay précaution la yuñ war a jël ñu jël ko waaye principe al qadar al imaanu bil qadar bu mu dañ mukk ndax dara du xew lu dul li yàlla bëgg rek kon nag ñu ngi ci ànd ànd ceeg yéen duggandoo ceeg yéen ci bismillah di ñaan yàlla mu tawfiqal ñu ba ñu woor ko mottali yee ca war a mët yëpp ci alhamdulillah jàngoro ji sama borom génne ko ci àdduna te wërsëgal ñu xol ak xel wuy xalam bañ mën ca jàngee ne ndekete nit du dara ndekete nit du dara ndekete koo mën a yéem du dara ci kanam dogalu yàlla ndigam as feebar rekk moo yëngal àdduna te wama yaalamu junuuda rabbika illa hu naka bon bés buñ war a mu janoog ñun moom subhaanahu wa moom ak boppam kon nag ñu delluwaat rek ci allahuma sallim allahuma sallim jërëjëf fadilatu imam ci leeral yu am solo yi dafa mel ni yonant yàlla muhammad sallallahu alayhi wa bàyyil na xeetam bi ay matuwaay yu wér yoo xam ne lu mënti feeñ ci jamono rekk dinañu war a xam ban taxawaay lañ ci war a am suma la déggee it dafa mel ni jaam bi war na jël ay matuwaayam waaye nag jaam bi wala jullit bi warul fàtte ni ndogal tamit ci loxo yàlla la nekk kon nag ñu jox leen euh, dig daje ëllëg ak jàmm ak salaam ci seen beneen émission ummati ummati ci rubrique ramadan fitness wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin